di eh, nag massaw ñi nga xam ni ñoom ñu ngi ci dakaar ak li ko wër wala sax feneen moo xam ni eh, mak ñàkku ndox mi sonal na leen coono goo xam ni wax dëgg yàlla eh, metti na surtout ci jamono ji nga xam ni feebar bi mi ngi mi ngi ci suñu kaw te feebar boobu bu nekkee suñu kaw ñun ñi dafa am lu nga xam ne daf ñu war pour ñu mucc ci feebar bi ndox moo ci jiitu moy raxasu moy eh, mais nak boko amul japp nañ ni metti mais nak ñu japp ni buñu peut-être ci gis ni techniciens yi wax ak eh, cinq forages ñu am buñu len fin du mois de juillet dañu mëna am lu mat euh, euh, juroom fukki ci bu mën a ñëw Ndakaaro loolu mi ngi war a mën tolloo ak production eh, usine de Niit bi nga xam ne dafa am problème mm. bu boobu bu loolu amee on peut mën nañu jàpp ni kon euh, euh, équilibre dana am entre demande bi ak euh, lu mu dee ci loof ndoxu Ndakaaru dafa dépendre yu bëri mais ndoxu Ndakaaru fi muy jógee sori na lool presque trois cent kilomètres fële ginnaaw Louga Kër Momar Sarr wante doyul ñu ñu koy mottali ak ay forage forage yi tamit euh, pexe ndëgandiku la mais euh, gis nañ tamit ni da Dakaaru macha allah ak lépp lu ko wër nit ñi gañ fee gën a bari lu normal la ndax mooy capitale bi on note peu près nit ñi gañuy yokku de 6 pour cent euh, téeméer bu boo jël juróom-benn nit ñi dinañ koy yokk ak bu tënk projet bu yaatu projet boobu pour que muy projet boo xam ni gën a mën a assurer gën a mën a tax euh, jafe-jafe ndox daal su fi jógul yitte dina lekk loo xam ne dina fi tumuranke ay at yu bari bari ga ñu gis ni ndox bi nga xam ni gouvernement bi euh, indi na ko yëpp jamul si kër yi bu yëpp demoon si kër yi kenn du am jafe-jafe entre Thiès ak Tëngéej wàññe nañ fa lu mat mille quatre cent maraîchers mooy ñoo xam ni nga ñuy bay ay supome ay ay euh, tomate ay xaal ay yeneen xeetu bay pour di exporter wala bu ko pour daan seen doole lu jaadu la ñooñu buñ dul woon lu

Lidem Mamel idem Madlen, Madeleine yi Tali et booster bi Carmel il faut ñu may ko doole il faut mu am doole il faut dole bi ëppati wante balamu dugg bu dee ga ñuy dagg tànkam génnaat ñu wàññi dooleem euh, ndox mi ak luñ ko a bi mu war a amal population bi dina gas gouvernement bi dugal na lu toll si ñaari si euh, juróomi milliards ak genn wàll si ay forage ay tuyaux yoo xam ne daf ko jagleel maraîcher yi nekk si ñaay bi proposé woon nañ leen yeneen pexe mooy un planning de raccordement wala un planning boo xam ni ñuy xool heure yi nga xam ne gañ leen di ubbi wala bis yoo xam ne gañ leen di tëj pour que ñu mën a équilibrer système bi en attendant ñuy am yeneen pexe pour ñoom